tey jërë nga góor baal di sa waa baax yàlla di nuyu Mawla di nuyu Bédé ak Gaxal di nuyu sama yaay góor la di nuyu Mbène Mawla baax di leen ziar mais loolu ñu ko ko laaj ndax tey jii ñu gis Mawla moo raw Ama gars yi laaj nañ ko mais ndax Mawla combat bi képp kenn ku ne sax doo liggéey xaalis la mais ci ma toll ci laam ndax xaalis moo tax nga jël ko ndax dootul moom sa morom ndax da nga ñëw boo jëlee da ngaa bañ a jël loolu combat ñu dem ba si biir rajo bi dañoo bëgg a xam da ngaa téye fu dëgër wala lan nga amee daal. Ah, fà fàttaliku ma dara woon fu ma ne damaa bañ fàttaliku ma fu ma ne dañ ma proposé amaa ma bañ fàttaliku ma loolu. non am na fu ñu toll ñu ngi mënul amaa bale. Eh. mënul ñu moromu amaa ndax boo bëree ñu mu bëree bëree bu bëree convoqué si bëri daal ñëpp xam nañ ko te affaire baa ngi manqué te ñu bëri ñu bëri dañuy yóbbu ko ñu la raaya mais dañoo bëgg lan moo tax déggoo combat da ngaa teel si dëgër taxaw si kenn ndax gis nañ fan yii moom toog nañ bu baax bu baax macha allah lan kenn gis nañ ko yaa ngi koy wane bu baax mais yu ko déglu ñu naan la donc ñu gis nañu la ñu def mais lan moo tax nga jël combat bi ndax fi nga toll wala teg titre roi des arènes teg nga romb ñëw lu ko ay li ko bu laajee daal leeree woon ko ay doon leeree woon noonu pour deewee. waaw li ko ay li ko laajee daal leeree tey bu ko laajee daal leeree woon noonu mu dee tey amaa moom boobu. bu mu la rek bu mu ñaanee yàlla tey léegi nag bu yàlla bàyyi ko rek. wala boobu góor la rek góor taxawal ko ñaar wax li nga xam ne bu dee dañ ne bu dee am ñu sunna dina lay wàññi yow bu mu la rek loolu laa jàpp dégg naa ay sotti yu bari mais du ay xaalis moomu ci dugal wala déet non non làmb dafa nekk suñu nattu ñun suñu nattu la nekk ba tax na femme yu bëri te comme defe naa wax naa ko suma su ma yàlla dimbalee a jël roi des arènes dama bëgg a wàcce ci booy yi du ma ne xale sax parce que maa ñoom ay marché dama leen di ci làmb bu dee benn at wala rek. Modou Balla Gaye Bombardier Lac Lac Guiers Eumeu Sène chaque fois loolu moo waral mais dara du ne fu ñu ko teg nag fu ñu ko teg fu ñu ko teg fu ci liggéey ah xam liggéey sabablu ñaan yàlla may ñu ndam ah, ñu am mais du fenn fu ñu ko teg oui loolu. mooy xalaat ne dana am waaw waaw waaw. mooy li ma la wax daal fenn fu mu koy teg mu dul lu ma liggéey ginnaaw yàlla li ma liggéey foofu laa teg te wala liggéey muy entraînement yi. du sës parce que dafa am lu nga xam ni man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëreeg kii nu ma tuddati bombardier ba mu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëri suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa ci moom deux fois loolu làmb rek dañ war ubbi teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay morom lañ man ak Ama Baldé ñëpp xam nga koo bëri ba pare loo xam ne làmb nawee la <laughs> foofu ay morom lañ waaw ma magee bu ma ko magee benn ñaar ci la yem xam nga ba tax na loolu man sama. macha allah plus de poids. ñaar Ama Baldé ngeen yàgg bëgg règlement de compte bi ngeen moom règlement de ma ko waxee 4 juillet 2009. ñu bari dañuy yaakaar ne ci Fapal wala naan jàpp ma ci sa Fapal 4 février 2009 li nga indee bàyyi ko Ama Baldé ci lay jàng bi waaw kenn si jot yëpp dañoo tax yow rek yaa ko o gis nañu loolu fekk nañ ko xool Ama Baldé di teg pied droit yow ngay teg pied gauche am na loo am na loo a fi Ama Baldé di bëri am na loo xamante ni da nga koy bëri arrangé Ama Baldé bigos affaire bi daal bari ba dama ci fàtte. ma ne ko bari na mu fàtte daal dem. waaw di la remercier ci loolu. di la remercier ci loolu. ba ngay wax léegi père Bakay dana da ngaa juum. ne ko léeg-léeg kii ma woo ko de li li muy wax xam na ko bu baax a ku yàgg Sénégal làmb la macha allah waaye di wax bëri na appui bu nekk ah ci làmb te chaque nga bëri bëri indi gauche mu di droite wala yooyu noonu am na li nga xam ne ñun duñ duñu gan ci làmb daal xam duñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku nekk ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama Baldé yooyu yooyu doomu ni daal ay pied gauche ak droite nañ ci jaaxal. te mu ngi wax yàgg nañoo tëggu déedéet man mosuma tëggu Ama Baldé moom moo ma yàgg tëggu depuis combat bi amoon wuur mu ñëw di mu tëggu xam nga loolu yàgg na lool waaye nag doon na ko wut lu yàgg mu jaral ko loolu mu doon def ba bis ba na fexe ba incha loolu mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan bu soobee yàlla wa salaam bu ko defee ko defee ah, loolu rek la ñu ñaan yàlla loolu rek la ñuy ñaan. mais moom Ama li ngay ah nee nañ day membre di ñëw de. day membre day ñëw. ah waaye fas muy membre de ñi bay wala wala ñiy yor wala sareet yi war nañ ko xam fas muy membre laabu service lañ koy laabee du membre de day taxaw. merci.